ngir masaw askan wa nga xamante nag ñoom la ndox bu noppi nag jébbal leen ndimbalam ca San Samba ci département bu Saare ak Kédougou njiitu réew mi Bassirou na nag foog ñu appliquer décret bi nga la ñuy amal ca dex Falémé bi en tout cas ak lu ci mënti am dexu Sénégal nga xamante nag moom moo ball indi na njàq rek tiis ca askan wi nga xamante nag ñoom ñooy yeewoo foofee ca Fuuta l'observateur ne ña nga xamante nag ñooy yeewoo ca Dandemaayo ay kàddu yu daw yaram lan yëkkati nee na ñoom nag jamono ji seen bakkanam ci xott te nag tiit nañ seenub ëllëg la solo yéene kaay dellu siwaat ak ñun ci njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye tukki nemmeeku bi nga xamante ne nag ma ngi koy amal foofee ca site orpaillage bi nekk ca peggu Falémé bi Bassirou Diomaye Diakhar Faye nag mi ngi attaqué ak tenue militaire am njiitu réew mi démb nag demoon na Xaraxena ak Sansamba ca Kédougou ngir dalal xelu askan wi ni nag foog ñu jëmmal décret bi nga xamante ne nag moom mooy aaye bëpp yëngu-yëngu bi nga xamante ne nag ñu ngi koy def ci wàll gasum or bi ñuy amal ca peggu dex ca jamono jooju nag langue politique bi jox loolu acteur politique yi di waaja bu baax élection législative yi opposition bi nag ñoom ñi ngi gën a dëgëral seen taxawaay yi enquête yéene kaay ni Bart Bougane Anta Babacar Ngom ak Thierno Alassane Sall Abdou mbay ñoom ñëpp nag ñi ngi waajal bu baax élection législative yi ni war a amal fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre bii di ñëw ginnaaw diggee engagement yu sàmm sa kàddu ak sànni xeer gi nga xamante ne nag waa APR ñu ngi koy def campagne bi nag tàmbale naa xaat yegg guñ si bu si Walf Quotidien egul sax sotti APR sàmm sa kàddu jumaa ak Sonko moom nag ñu ngi leen di critiquer fu nekk journal bi di Le Quotidien moo ko xamle bat ñetti biir ëttu yéenekaay bi mënuñoo dénk ndakaaru ab sàcc Birame Faye bu APR nee na vision Sénégal 2050 nee na PSE rek la ñu copier projet bi nga xamante nag nguur gi yees yi moom la fi teg nee na mooy PSE bu Macky Sall les échos yéenekaay ni SND Sénégal 2050 mooy rek PSE horizon 2035 axe stratégique yi benn la leen rek lan bokkul mu di quatrième bi nga xamante nag moo ñeel gouvernance territoriale Birame Faye dina xamal itamit ni principe directeur bu PSE ak bu projet vision Sénégal 2035 yépp benn la bés bi la jour dellusiwaat ak ñun ci kàddu Barthélemy Dias meeru Ndakaaru démb amul lu mu deseelul Jomaay ak Sonko nee na ñoom ay kanaaraak ginaar sax tabb nañ ko loole day wane nag seenub tëlee sàmm sa kàddu ak takku wàllu ñi nga xam ne ñoom dañuy amal téléthon téléthon yooyu la nag koppar yi nga xamante nag dinañ ko si jëlee nañ ko jébbal ñi nga xamante nag ñoom ñoo lorle nag moo am ca Matam Kédougou Bakel Sénégal kese ñoom nag nee nañ bugguñu assamble bi nga xamante ni nag nguur gi la fi nekkal nee na ñoom nag fukki fan juróom-ñaar ci weeru novembre bii di ñëw nan xeex ba teg fi assamble bi nga xamante ni askan wi la fiy toogal ca jamono jooj nag libération yéen kaay dellu siwaat ak ñun ci brigade de recherche bu Kër Massar jaloore wu réy wi nga xamante ni nag moom lañ def ñoom nag jamono ji yëpp ñu ngi xeex ak trafiquant phobie yi si diggante ñaari semaine rek teg nañ loxo lu toll si ñaari milliards sunu koppar ginnaaw weesu takk der yi ñoom it démb teg na loxo ay billets noirs lu toll si benn milliard sunu koppar ñett ñi nga xamante ne nag danoo njort ni ñoom ñoo bokk ci mbir yi yoon teg na leen loxo ak benn daamar ñu waxit ci bombardement yi nga xamante ne nag moom la israéliens yi di amal foofee ca Liban sénégalais yi nga xamante ne nag ñoom ñoo fay dund ñoom ñi ngi ci njàqare tiis jamono ji sax ñi ngi yooxu wallu ngir nguuru Sénégal ñëw dimbali leen bu ñu sukkandikoo si le quotidien yéenekaay tàggat yaram ak réew mi sport weekend bi nag la ñuy door saison Lutte Pro bi fii ci Sénégal am na ay ndaje yu am solo yi nga xamante